moom ak salaan nga ni. bokkul salaan tamit yéeme na. salaan lu yéeme la waaye salaan fi mu gën yi nga hémorroïde bii ni wax nii. hémorroïde bii di bëgg a sonal gars yi. waaw lii nekk nii salaan lu ko si gën a gaa ah? waaye il mu ñëw ci yow wala mun naa dem loo xam ne rek ko xam day dem jël. salaan bi rek baxal ko toog ci wala mu ñëw. <laughs> nu jël salaan ba ñun def sa lan sa def jox ko mu jëfandikoo ko waaw wax ne bu dem sa salaan ga rek dagg def loolu ko ko def man waxuma la ko du ma la ko <laughs> leer. waaw il faut nga ko moom bi. garab yëpp doo ñëw rek dagg. bokk na si ñàkk xam gis nga mi ngi nii gis lii waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf tubaarakallah mu ngi nii waaw léegi nag maanaam salaan gi fa li nga xamante mooy taatu salaan ba ne le fa ngay def la nga xamante moom ngay def bu ko defee na nga ñëw ut ci li nga xamante ni mooy euh, bant yi nan dañ koy baxal nag. waaw dañ koy baxal mun ko baxalee xool ay alxuraan yi nga xamante ni moom lañ koy booleel. waaw bu ko defee nag mun ko booleeg moom ba pare ne ko jëfandikoo ko nangam ak nangam ak nangam bu ko jëfandikoo da nga gis c'est sensé sensé. du toog du toogaat moom gën kaa yàgg daal moom. dana diir li nga xamante ni mooy juróom-ñaari fan yoo xamante ni maanaam. moom moom la bind moom moom la ko jëfandikoo bu ko jëfandikoo na ci hémorroïde bi. xaw ma kan moom muy externe bu interne bu ci biir bu ci biti bu mu ci mënta doon. ay incha bu mu si mënti doon rek. bu mu si doon. yàlla bindul dara si ñun si neen garab yi yëpp ngay gis ni bindu si dara si lépp loo xamante wàccee na ko te ñun. xam nga lii moom koo xamante nga juddoo yaroo si wëlbati ko jàng ka d'accord léegi am na beneen garab bu ma yéem tamit. Mhm. new kooku moom moo jàpp garabu garabu new <laughs> kooku waaw moo jàpp allahu allahu moo jàpp lan allahu tur yàlla na allahu waaw boo jëlee boo jëlee nga bindi new waaw nga jël sa machine calcul calcul la la allahu moom la la jox chiffre boobu la la jox waaw moom moo jàpp allahu moo tax moom secret moom moom bokkoon si garab yi gën a waar moom garabu new yàlla xam na ko moom si wërsëg rek la gën a aayati moom kooku moom tëj tëj moom xam ma lam waaye ku ko def moom danaan ko dalaa dalaa neex te moom mbir la moo xamante ne si néew ban côté la bëgg gënee bëri parce que bëri Sénégal bëri suñu dëkk bokk na si fi ma xam waaw béyti géey googu bëri ay garabu néew dafay néew kenn xamul lu mu toll dafay doomu new kenn xamul lu mu toll waaye tey xob yooyu si boppam waaw moom am na noo koy jëndee comme ni ma ko waxee woon si garab yee jàll rek am na noo koy jëndee waaye moom du ma ko wax moom. boobu moom ma ko wax. ndax moom dafa nekk garab bu ko xam nga doy waar la moom. ci wàllu wàllu wërsëg moom da ci daw baax a baax a eh, gis moom boo ko sangoo da ngay gis fa tabaarakalla xéewal gi di di ko côté bu nekk ndax mooy jàpp allahu waaye allahu boobu des na ko si liggéey si ab lim des na ko liggéey si ab lim. moo ne nii. waaw garabu new moo nekk nii. waaw. gis nga tuuru allahu bi si boppam. doom bi nag su ko mënoon génne dina baax lool turu allahu ah, faw ñu garabu new bu ñor bu am bu am doom bi bu mënoon ñëw dina baax lool <laughs> waaw turu allahu uh-huh. soso soso ci nga turu allahu boobu am na lim bu ko bind wallahi alazim kooko kooko sangoo doomu new baa ngi képp koo xamante si sang ka si waaw yàlla xam na ni non lii du new lii goyaab la lii du new lii goyaab ah? ma new <laughs> new am na allahu tur woo xam ne lim boo xamante moom nga say bind. Mhm. boo ko se bindee. Mhm. Mhm. jaara ko yoon moom war a jaar amul kenn koo xamante si. dana ko sangu lu dul maanaam dana ubbeeku si buntu xéwal buntu xéwal yëpp dina ubbeeku. mais lu lu mu lu mu koy jëndee moom doo ko wax. déedéet moom dama ko wax moom. waaye daal moom même sax ñi nga xamante si dana wa lijjanti wàllu kayit yi moo si gën a gaaw. néew ak li nga xamante moom mooy wén ñoom ñaar ñëpp ñoom. terrain bi fa tabarakallah jërëjëf. neew mu nii li nga même doomam bii rek am na lu nekk si biir moom la ñuy wax am na boo ko moom la wax saal tey boo lekkee waaw waaw saal bi saal bi tamit si wàllu tension ñi nga xamante ne am na tension lu baax la si ñoom ñu ko jëfandikoo waaye tamit amaat na beneen secret boo xamante si day taw ci wàllu wërsëg waaye moom it sangaay lay doon sangaay lay doon waaw new ak wéen wéen moom wéen moom saalum la am moom wéen saalum la am wéen wéen garab gu ne wenn tamit boo xoolee allahu lay jaabu waaye ñaari garab yooyu nooy ñaar yoo xamante ni moom bu dee wërsëg bu dee wërsëg moom gisuma ju leen si man moom ñaari garab yooyu moom bu dee nga doon bu fekkee koo xamante ni day lijjanti kayit mhm. mu të ndaxte soso la waykat ba wax rek àddina day warangiku jamono àdduna day warangiku waaw jamono uh-huh. day warangiku dëgg la ku toog ci lu warangiku uh-huh. loo bañ bañit warangiku wallaay dégg naa loolu mooy mooy mooy mooy ñëw gi ni ñëw fii nga xamante ni si ah. tey ji mënta ñàkk ni ñëw ndax jamono moo ko laaj jamono moo ko laaj ñin ñaa ngi sonn di dem fu nekk kër go kër Massa doo dimbali kenn ñun duñ oh. xam fu ñu lay fekk wallaay ngay ñëw jamono tollu noonu dëgg la jamono moo tolloon mm-hmm, mm-hmm. moo tax képp koo xamante si umu nga tëju nga kayit nga lijjanti mu të mm. mënoo am dara mm. kii mooy ki si gën a gaaw moom ak wéen waaye nag sa ka nga xamante ne xam na yoon wa mu koy jaare ba liggéeyee la ga ba def ko sungu ba jox la nga jëfandikoo ko. nga jëfandikoo dana mel ne mosoo laal garab. d'accord naa léegi dafa am lu nga xam ne daf ma yéem. Mhm. ci garab yii ma la tuddal nii léegi. Mhm. te du ci ñoom rek lay génn. Mhm. ñun dañ ko daan gis suñ taamu booy mun ñu koy tuddee toob. tobb muy tobb. muy sax ci biir garab. soit day nekk benn genre. <laughs> waaw day mel na lu bok si garab gi rek comme tey garabu néew gi. waaw maanaam car yi car yi. waaw da ngay gis day nuroog car yi. mais duñu bokk boo xoolee sax moom day gën moom mooy gën a dëgër. day am ci sump tamit day am ci sump day am ci poftan. bii ma wax léegi nii waaw day am ci poftan nga wax léegi te ba si salaam. ngeen wax loolu su ma ko mënoon génnal. waaw dana dana yomb bi day nekk ci biir garab gi. waaw day nekk ci biir garab gi. waaw naa topp la tudd. topp lañ ko doon wax. <laughs> topp la la. waaw lii tóortóor la waaw kii la. non waaw dem garaawul. topp bi moom xam naa du ko du yomb moom. waaw joxuta am. waaw ndax topp bi tey mën ngaa gis topp bu new man ngaa dem ci soso tey ji si new. waaw nga gis topp bi léegi man la soso boo indee topp bu naa la fay quatre cent mille ndaxte bis bu ma la ko defaral yàlla xam na ni topp bu new moo tax am ka moo bokk na si topp yi gën a jafe si. si ah, lan nga ci mën a topp bu new ak topp mango nooy topp yi gën a jafe si topp yi gis nga. waaw tey topp new soo ko amee. ka gën a tëju si àdduna bi laa la wax. boo ko lëggee boo ko joxee. waaw da ngay gis mbiram yëpp day daal di ub day daal di baax muy topp bu new muy bu new tey nag man ngaa gis ak new nii. ngan ma sëñ xaarim yaa ma waxoon yaa ma yaa ko yaa ma digoon ni ma boo gis topp doon naa naa jox jox nangam. man la maa la ko wax. ngan ma nu dem. waaw bon demee doo fa gisaan dara. doo fa fekk. doo fa fekk dara ma koy uti kay moom. utal la nga xamante si moom nga kay moom ngay jënd maa la nga koy jëndee. nga yóbbaale ko xam ne maanaam tey jii boo gisee topp ga rek def li ngay def dem. doom doo ko woote ji. doo doo ko doo ko dagg. mais boo ko wane ginnaaw bu ko fekk. ko fekk loolu yéeme na kay sëñ bi. ah. mbir la moo xamante ne si nee naa la mbir mu doy waar la si wallu wërsëg gisuñu lu ko si gën a gaaw. muslu. bu dee wàllu li nga xamante ni mooy muslaay moom mane na ko waaye nag bi mu ëppee doole wërsëg mooy wërsëg moom moo ko tax a jóg moom bu dee topp boo fekk ci garabu sump bi bu dee boobu la te ñu nga fekk si garabu sump bi ni yi da nga ut la nga xam ne de moom koy jëndee waaw jënd ko waaye man boo ko jëf moom daal topp daal en général daal ci wërsëg la gën a gaaw moom si wërsëg la gën a gaaw ci ibbi nit yokkute te yaakaar naa topp xanaa bariwul lu ko gars yi di waxtaane de moom maa non non non dëgg dëgg nag ma ko waxtaan ak nit de topp dëgg neex musuma ko waxtaan ak seen topp <laughs> topp nag topp nag mooy mbir moo xamante ni si soso yàlla xam nan ka koo xamante si yàlla dimbali la ba nga gis ko. waaw mën wut ko. bu kooku moom say mbir moom xaw ma kan waaye taaxal ba daan moom ñàkk moom. ah. mukk doo taal kenn loxo. waaw mais lan moo tax mu jafe lan moo tax mu jafe. lan moo tax mu jafe. dafa am période bu muy génn ci nawet bi lay génn noor bi. lay génn uh, waaw lu si ëpp nag noor gis ko waaw lu si ëpp. nawet bi moom boo gisee garab yi dañuy naat. garab yi dañuy naat noor bi ci nga gën a mën a gisee yëpp a koy am su euh, guy ak yooyu yëpp dañ koy am. waaye nag li nga xamante ne mooy noor ba sa nga gën a mën a gisee ndax noor ba day fekk garab yu bari day guy la da nga gis ñu commencé dee néew sax moom li mu koy li muy kii bariwul li muy dee bariwul waaye bu dee ay guy la moom boo ñëwee bu dee noor da moom day day neex gis moom bu dee guy la moom. Hmm. mais bu bu néew boo gisee mu naqaree gis mooy néew daanaka noor ak nawet yëpp moom da ngay gis day. day am day am day am meññante. day am naataange moo tax moom mooy ki nga xamante si mooy gis si gën a naqaree gis waaye daal képp koo xamante si moom liggéeyal nañ la gis yor nañ ko nag moom. Mm-hmm. yor nañ ko waaw danañ ko te dañ si liggéey ay nit dañ si defal nit yoo xamante si tey ji nu ngi ti seen biir dëgër lool lool lool waaye ban ko jëfandikoo rek daa gis ba ci. da ngeen ciy nopp da laa bëggoon a ñëw sax. yàlla xam na ko foofu noonu. moom laa doon bëgg a wax. Mm-hmm. naan la tey jii koo xamante si dafa am problème. Mhm. ak jëkkëram. waaw. kooku dañ ko si liggéey diir bu diir boo xamante si sax du yàgg parce que ki nga xamante ne si dafa bëgg borom kër muy ki nga xamante ni muy ku góor ki mu bëgg jëkkër. muy ku. jigéen ki moo bëgg waaw bu dee ku góor ki moo bëgg jabar moo bëgg bu dee jigéen ki yëpp da nga ko ci liggéey. dañ ko si liggéey te liggéey la boo xamante si bu wér a wér sax. mais kon da nga am ay toob yu bëri téye ko sa kër nii. yëpp laa téye pour liggéey rek. ku liggéey. waaw nee naa bu fekkee man xam naa garab bu am ay topp man. Ah. maa la ameel 500000 soo soo ma ko wan soo ko. su ma la ko andilee. soo ma ko ma jox la 500000. est-ce que man koy jëndee man su ma ko doon andi. nga lan la. da may wax li ko wax ba pare. yow boo ko ma la ko gisee ginaaw waaw. waaw léegi nag. damay bañ woon la ginaaw pour wax si la ko. waaw waaw loolu dëgg la moom. loolu man am na am na ay toog. waaw léegi nangoon naa. waaw si émission bi jeexee. waaw dinaa la wax. waaw li nga xamee moom nga koy jënd. waaw kay. mais nag sama diggante ak yow la yam. Ah, naa koo jaay tamit keneen de. <laughs> damay business mën naa koo jaay de. <laughs> Ah. loolu see xam nga loolu. Ah. day tax rek. ñu mm-hmm. xam ne suñu borom. Mm-hmm. du nit. yàlla bindul dara ci hasard. te tey lépp lu mu bind rek am na njëriñ gu mu war a jëriñ doomu aadama. am na njëriñ am na it. doomu aadama jëriñ gum ko war a jëriñ. wallaahi la dox xam nga garab gi ne wax wax was wasuur. was wasuur. waaw garab la ba maa ngi garab la goo xamante ni am na saalam sunu côté tamit am na fa. garab la goo xamante si moom. Mhm. mooy jàpp mooy jàpp tur wow na. Mhm. wayan sunu ko laahu nasran azizan boo ko mhm. xoolee day nekk. huit cent dix huit boo jëlee sa calcul ñi nga xamante si. noo mën a calculer jël. Mhm. boo bindee wayansurkallaahu nasran asitan mhm. boo ko calculer mhm. day doon huit cent dix huit boo jëlee was wasuur nga calculer nga bind nga bind was wasuur boo calculer sa machine day nekk huit cent dix huit hmm? waaw léegi nag moom it comme ni ma ko waxee rek a daf wal waaye moom it dafa am boo koy jënd dafa am raakaay yooyu yoo xamante moom nga fay julli waaw da ngay dem yóbbu la ngay nga julli fa nga julli fa ah. dafa am waxtu dafa am ah. waaw dafa am waxtu am na lim boo xam ne moom nga koy def si kurus. waaw booy booy booy julli am na werdu boo xam ne moom ngay def si kurus. waaw boo ko ko tamit boo ko utee ba pare moom it dafa mos jël côté bépp la mën a nag moom. d'accord naa léegi